waaw merci Babou euh, ñaari at bëriwul ah. <laughs> waaw bëriwul a à signaler je parle sous le contrôle d'un olympien. xam na lan mooy préparation Jeux olympiques. Mhm. kenn du ko def ci benn fan kenn du ko def ci un an kenn du ko def ci deux ans kenn ko def ci trois ans c'est des allées qu'il faut détecter très tôt. Mhm. qu'il faut encadrer qu'il faut entraîner qu'il faut regrouper au moins pendant quatre ans nee na le 30 juin lañuy ñuy le programme sportif ça c'est le CNOS man xaw ma seen programme xaw ma seen plan de com mais man athlétisme laa xam ak sport waaw je sais que ne on a accusé énormément de retard dans de la préparation des jeunes mhm. pour qu'ils puissent participer au niveau des Jeux olympiques j'ai peur mhm. je le dis partout qu'on des résultats très piètres très piètres su ñu amee ndam Jeux olympiques rek c'est le génie sénégalais comme toujours d'ailleurs parce que depuis plusieurs années avec les régimes qui se sont succédés les trois régimes qui se sont succédés on n'a jamais eu de politique sportive lui c'est sportif il a été victime de ça fi mu egg ni tey état du Sénégal jàppale na ko certes mhm. mais en grande partie c'est l'investissement humain c'est des sacrifices énormes que les athlètes font mhm. aujourd'hui on a le cas de Louis François Mendy qui doit aller aux Jeux de Paris. Euh, dina du ma ci dugg du ma ci sori. ne serait que pour dire que l'investissement humain presque compte à 75 pour cent parce que bu ñu lay jàppale dans le programme sportif dañ koy yéex a def benn deuxièmement li ñu lay jox du doy aujourd'hui tey fi ñuy wax ni on parle de jeux de jeux 2026 kenn mënu wax tey ban poule en tout cas pour l'athlétisme ban ñan yan jeunes ñoo ko war a daw je parle pas des tranches d'âge mais je parle de la détection je parle du ciblage qui devrait se faire n'oubliez pas que les Jeux olympiques. mais est-ce que nekkul woon fédération moo ci moo ci moo ci moo ci moom moo moo nekk moom moo nekk euh, maanaam mooy cëgal guy bi est-ce que moom waru ko def d'abord après su ko ñi nga xamante ne moo di mooy JOJ bi. lékkati kese dafa naxu bay lékkati kese naxu lu bay fédération kan moo koy jox xaalis bu muy dem détecter dañuy wër ci mbedd yi di yalwaan. non nous sommes un démembrement du ministère des sports nous avons en charge le développement du sport depuis combien de temps on ne reçoit pas de subvention du ministère des sports. xam nga li ñu war a wax. Mhm. dafa bari. d'accord donc je pense que aujourd'hui waroon nañ passé fii. Mhm. avant may dugg ci salle bi laa toog xam nga lu ma gis. Mhm. Paris ñi convoqué ay jeunes de 16 à 17 ans xam nga pour kañ pour les préparer pour 2028. on ne parle pas de 2024 Jeux Paris la ñooñu ñu convoqué pour leen defal benn clinique c'était pas pour les Jeux de 2024 ce n'est pas pour 2026 pour on est en deux mille vingt quatre. vingt quatre oui c'est quatre ans. quatre ans donc je pense que euh, Sénégal war nañ xoolaat suñ politique sportive. d'accord heureusement on a un nouveau régime qui vient moi j'ai lu. dina si ñëw le le voilà dinañ ci